jégleen nañ ko aide bi muy ed bi nga xam ni ñi nga xam ni dañu xaw a loru ci li nga xam ne rek mooy pandémie bi muy mbas mi li nga xam ne mooy secteur bi ngeen nekk mu que ça soit muy art visuel que ça soit aussi euh, muy d'autres domaines particulièrement yéen fi ngeen nekk muy peintre yi ak euh, cinéaste yi euh, tey ci côté boobu secteur boobu ban impression nga am ci actuellement ni ñu dindi mbir mi ak jaxasoo gi nga xam ne am na ci séddale je trouve que c'est une bonne chose jéem a dimbali euh, le secteur des arts jéem leen a dimbali ci période bi ñu toll nii quoi où vraiment tout le monde en a besoin mais seulement euh, doxalin bi moo xaw a am ay problèmes y en a qui disent waruñu woon a laaj ay œuvres di ko jënd parce que tamit suñu defee noonu day mel ni artistes plasticiens yi rek la ñuy laaj ñu joxe dara. mais ku nekk ci cinéma laajuñu la da ngay ñëw rek ñu ne bon 500 millions la pour pour le cinéma léegi ñu jël ko def ay catégories seet kii moo ci jëkk kii moo ci mujj kii mi ngi doo a commencé cinéma ainsi de suite noonu lañ ko catégoriser ba euh, euh, distribuer seen fonds euh, côté cinéma moom franchement jusqu'à présent dégguma ci benn coow parce que euh, vraiment ñoom ils ont été très transparents dañoo communiquer au début lu xew dañ koy communiquer bi bi génnee ñu ñu ñu génne ko après mujj gi ñu génnee les catégories bon par exemple man mi nga xam maa ngi doog a commencé cinéma mënuma bokk catégorie ak Lamine Ndiaye que tout le monde connaît depuis la nuit des temps il est la kooku mënuñu bokk catégorie kon y a rien à dire sur la catégorisation aussi ci cinéma bon ñi gën a néewle am nañu lu sakkan loo xamee ni lii mën nañ cee jàpp jàpp te ñooñu day fekk ne ren la ñu commencé cinéma régisseur la ñu ci benn film wala wala décorateur ci benn euh, série voilà ñuy doog a commencé sax déjà ils ont trouvé leur compte waaw kon euh, comme di dit gàcce ngaalaama secteur cinéma. Mm-hmm. dafa am beneen problème bu posé aussi euh, ci séddale bi mm-hmm. dafa mel ni lu bari dañ ko viré yóbbu ko ci SODAV. nga xam ni euh, lépp luy euh, euh, droits et voisins wala lu jëm ci droit d'auteur loolu yëpp moom éditeurs yeeg ak ñi nga xam ne yëpp ñoo yëngu ci wàllu culture dafa mel ni daal ministère bi dafa jul lu bëri dem jagleel ko SODAV te or que SODAV am na benn particularité par rapport mu mën a se séeréer gérer en général secteur yi ban gis-gis nga ci am ndax ci tool yi bëri na trop. lu question boobu moom wax dëgg yàlla ah du ma ci mën a sori parce que je trouve. quand même que les 3 euh, milliards ont été bien répartis waaw ñun waroon nañu bokk SODAV peut-être dañu demul wuti carte parce que on est des auteurs war nañu mën a des droits d'auteur mais am nañu secteur bu ñu bokk y a aussi des non inscrits même à la SODAV non sur le plan de la répartition c'est pas un problème xam nga problème bi mooy séddale bi ba ñu jotee xaaj bi ba pare séddale ba moo am problème parce que mënuma comprendre mënuma comprendre mën naa comprendre sax euh, une boîte de production ñu jox ko 4 millions ñu jox ko 7 millions parce que boîte de production la mais mënuma comprendre que artiste peintre mu ne day jaay œuvre am ñëpp di jaay seen œuvre mu am ci ñoo xamee ni dañ leen di jox 7 millions ñii ñu leen di jox 4 millions 5 am ñoo xam ni amuñu dara kon dimbale kenn enfin dimbali nañu ñu la neex waaw parce que am na ay artistes yoo xam ne déposé nañu seen œuvre des œuvres de valeur mais sur la base d'une sélection je sais pas sur euh, bon parce que peut-être que seen euh, seen œuvre rencontre wu la sensibilité du jury parce que y avait un jury et ça ce qui n'est pas normal c'est que dañu waroon jël parce que xam nañu kii kii dañu waroon jël œuvre yi ku ci nekk ñu jël sa œuvre seet bu fekkee da nga def un prix raisonnable ñu jox la ko su fekkee ton prix est exorbitant parce que tamit des fois les gars ils exagérer alors en ce moment là ñu négocier yow ba man ko jënd nga am dara nga mën a continuer sa liggéey parce que depuis mars ba léegi tout est arrêté. mën nañu mi politique daf si rax. Hmm? mën nañu jàpp politique ah man je crois pas. Hmm. je ne crois pas que mu am politique. Ah, parce que bu amee loolu mën na bañ a doon politique mën na bañ a doon politique parce que man. ah su fekkee dañ may jox dara pour may séddale Cheikh sama xarit la dama koy jiital. man affaire copinage la. waaw mën na doon copinage mais pas pour.